ba tey su baaxee ñu def ko ñi ngi fii kër Ndeye Fatou Diouf mi nga xamante ni moom moo ñàkk at moom moo ñàkk bakkanam ci dee ci accident bi am kafrin ñu toog ak eh, kenn koo xamante ni moom la bokkal muy sëram ñu bàyyi ko rek mu nuyoo soxna si nuyu nañ asalaamaaleykum maa maa ngi leen di bu baax di nuyu mbooloo mi fi teew di leen ziar bu wér dëgg la ñu ngi lay eh, masaw si eh, ñàkk gi nga xamante ñàkk nga ko sa sër est mën nga ñoo wax jéye ji nan ngeen ko yëgee nan ngeen yëgee tamit ñàkku bakkanu ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatou sa waaw Ndeye Fatou sama mag la dama ko woo samedi bi jotuma ko ma jot boîte vocale dimanche bi. samedi yan ay 16 yooyu laa ko woo jotuma ko fekk man tàggu woon na ma moom du def dara lu ma yëgul. ndax dafa jël damaa jël def man na ndeyam boo xool ne sax man la gën a bëgg ka ndeyam waaw ah, ndax eh, bu déggee dakaar bu ñëwee day jël téléphonam am daal di may woo téléphone daal di ma ajaamus mu naan ma ne ko naa mu daal di ma ñëwal ñëw naa ñëwal ñu ataaya ma ne ko waa maa ngi ñëw bëgg ma nag fa bëgg bu fa bëgg jeexee dëgg yàlla mënu ma kaa fay bëgg na sama doom jël sama doom jëndal ko jakataa bu bees tàq jox ko muy dawal waaw bu sama doom feebaree nday faatoo ci gën nday faatu aw ma fayam xale bu baax la doom bu baax la bu ma bëgg bu ma yërëm waaw fan yee passé rek am naa xew jëm ñaajo waaye dama jëloon deuxième njëkk bi sax jox ko waaye ba ma jëlee deuxième bi njëkk bi jox ko waaye gis nga li yàlla def yërëm ma man man ndeyam ma bokk ndey baay aw ma doole muy yërëm ma bu ñëwee xaalis bu bari lay yëkkati jox ma ni ma commerce sama taabal ngi nii ci ginnaaw fii laay toog ci mbedd mi di jaay bagage xale yërëmoon na ma jàppale na ma dimbali na ma yiir na ma suñuy may yaayam du ko tere ba yaayam événement jotee xarum tabaski mu rëy la koy wutal xar mu ngi ko jëndal mu ndaw yaay ji daal dina ko ah, mu ne ndey paatu ndey paatu sa xar mi ndaw na de mu ne ko kon yaay bàyyi dinaa la jëndal bu mag mu jëndal ko boo xam ne dañ koy dat ñeenti góor a koy téye mu indi ko indi ko yaay ji kontaan ni ko ndey paatu maa ngi lay ñaanal yàlla lii nga ma defal sam nga ko njëkk a defal waaw sam nga ko njëkk a defal man awma lu ma la fayee wax dëgg yàlla baax yërëm ñu lu ne mu jàpp ci loo xalaat ndey Faatu ma ngay daw duñ ko indi xarit la amul benn problème wax dëgg foo ko fekk mu ngi ree rek xolam. masa xol bu rafet la am amul benn problème foo ko fekk mu ngi ree rek fekk mu ngi ree rek. te avant may kii sax na ñëw ne ma sala góorgóor sa sëy bi ma ne ko waa lu rafet lu rafet la may seede xool bu rafet la am amul benn problème foo ko seen rek bu ñëwee ngay jëkk a séen wax dëggee waa këram itam min suus amul benn problème doomam itam billaahi amuñu benn problème xool bu rafet la am. mbir mi nan nga ko yëgee. ma ne mbir bi ma ko yëgee dama maa def soog soog la ma def na man damaa tiit parce que damaa dem liggéey wàcc ak sama benn rakk jëkkër ne ma sala yëngal lu xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma abaade moo ma ko déedéet te man jour boobu maa ko doon woo avant affaire bi di am man maa ngi ko doon woo maa ngi ko doon woo téléphone waaye téléphone bi di sonné ba tond si laa jaar mu ne ma sala yëngal lu xew ma ne ko yëguma lu xew mu ne ma lan la mu ne ma abaa ma ne ko déedéet après si laa ñëw gis xale yi bu ma xoolee doomam bu ndaw bi sama adduna bi yëpp tukki mooy alaaji bu ko xoolee sama yaram yëpp a daw parce que dafa bëggoon doomam bi dafa bëgg alaaji bésu tey bi nag bésu bànneex lañ ko def ndax yàlla moo dogal ba mu bindee dund la bind dee muy kulu naftin saa yi xatil mawti bakkan bu ñam dund dina ñam dee ñu def ko bànneex delluwaat ci yàlla suñu borom te xam ne li yàlla rek moo ko dogal moo ko man mën nekki fi passé weekend bi weekend bi passé parce que fin weekend bi début weekend bi la ñëw vendredi la fi quitté yàlla dogal incident bi am samedi mu envisagé woon pour dem voyage ñëw dimbale ay ay waajuram yaayu ndey faatu mi dem ci ko jur mook sama yaay ñoo bokk benn yaay ci kër gi ñu ñëpp fi lañ këru famille la fii c'est une maison de famille mu metti lool nag moom ci bopp mu nekk soutien de famille parce que famille boo gis dina am koo xam ne moom la yàlla dimbali di ko jàppale mu mën di soutenir famille bi su nga gisee bâtiment bi mu tabax ci kaw nii rek ngeen xam ni am na lu mu envisagé woon amoon na ay vraiment euh, yéene pour defar dimbali ay waajuram yaayam moom tam aussi moom tam fu si gën a famille la ci ñoom la yaakaaroon yàlla def na mu bàyyi nag ñetti bant ñaa ngi jigéen ak benn bu góor bu góor bu ndaw bi da ko doon fay dañe bu ci muy jàng déjà loolu mu ngi féete boor ndax gisatuñ ko liñ ci am mooy deena rek dafa doon dem voyage doon def commerce pour suqaliwaat am amam tuuti pour mën a def ay projet am projet yëpp ñu ngi nager dans l'eau waaye loolu la yàlla dogaloo moo neex yàlla suñu borom bi suñu gisee suuf si mu tegee ngeen xam ne xel am na lu mu ni saroon birig yaa ngi ni tege mu ba facile mu àggale bâtiment bi pour yaay mu génne ki location ñëw ci kër gi fi ne moo leen amee ci dépense dépense individuelle ak dépense journalière yi lépp moom moo ko amee woon macha allah waaye li moo neex yàlla suñu borom bi ah dogal bi nag metti na waaye dañ koy nangul dañ koy nangul yàlla ndax yàlla moo waxoon rek fi lay yem. mu metti lool nag waa ñu def ko bànneex bànneexoo ko nag santaat yàlla bu baax ndax yàlla dimbali nañ ba nga xam ne xel la ah parmi les morts aussi moom tamit yàlla def na daal ah macha allah gis nañu morts yi am ci télé bi j'ai vu la TFM vraiment la Sen TV mais ni am ci ay cadavres yoo xam ne dañ leen a les les les non gis nañ leen mais yàlla dogal na moom ndeysaan daal gis nañ ko ci jàmm. ah métti na choc bi nag parce que de d'un seul coup métti na c'est très dur ah, yàlla dogal nag aussi Macky action yi mu def yëpp président de la république bi mag président Macky sal ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm te li mu bëgg aussi moo ko xam yàlla na ko yàlla defal bu gënee ci moom. ay ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp waaw muy nag ah, xale bu baax xale bu bëgg ay ndeyam bëgg kenn. bi ñuy wax ci moom wallaay duñu doyal bu tabaski jotee ñun ñëpp dañuy oteesu te fu mbubb gën a seere gën a baax moom lañuy xotti ñun ñëpp ñooy àndandoo jiitu dem marché jiitle fu ñu romb sax dañuy xoolaat ndax rekk baaxam wooyafam li mu boole moo bëri moo tax euh, démb bi ñu yëgee lii mu metti ñu torop torop démb rey nañu suñu bopp parce que man sama jëkkër moo demoon dem seeti ji ko xëyee fi démb fajar ñëw dem seeti ko moom moo ko gis ba mu ko gisee après mu lijjanti lépp ba indi ko fii ñu guddee ñëw te lépp ci baaxam moo ko waral am man bu may wax ci moom bilaay du ma yeggal tàggu na ma ne ma day dem Kaffrine euh, fële bi ma ko woowee. fan la jóge ak la doon dem. Dakar jóge Tamba la doon dem jóge jóge Tamba di ñibbisi ndax soxlaa ma ko yóbbu woon liggéey rek moo ko yóbbu ba mu demee man dégguma ko samedi bi dimanche bi itam dégguma ko ba ma koy woo yëpp boîte vocale laa jot su ma wootee jot boîte vocale ma ne waa Ndeye Fatou lan moo tax may jot bu avocat ma ne xëy na peut comme iPhone la yor te day day gaaw a déchargé wu ma ne xëy na téléphone am dafa déchargé wu man noonu laa ko jàppee woon. mais démb bi ma toogee sama yaay mi moo ma woo téléphone ne ma Ndeye faatu ñu ngi koy woo jotuñu ko di jot boîte vocale ma ne ko même man mii sax boîte vocale laay jot. comprendre nga léegi nag sama xel commencé ñaaw mu woo ma ne ma bijou ma ne ko naa mu ne ma daw sil nga ñëw ma ne ko lu xew mu ne ma daw sil nga ñëw noonu la ñu yëgee nouvelle bi. fekk na sama sama sama jabaru uh, kiiwu yaay bi moo demoon moo identifié corps bi moo ñëw moo ñu wax lépp li ci xew nii lañ ko yëgee démb rek lañ ko yëg. waaye nga yëg ni sarak muy Ndeye Fatou mi nga xamante ni yaakaar sa mag di Ndeye Fatou mi nga xam ne yaakaar bëri woon na ci moom génn na àdduna ba nga yëgee uh, nouvelle bi ak mi nga xam ne moom la génnee àdduna soxna si lan nga yëg. waaw yëg naa lu metti yëg naa lu metti ndax dafa di koo xamante ne mag ju baax la. mag ju am njëriñ mag ju dimbali ay mbokkam dimbali ay fameem man mii duma bàyyi benn yoon lu ma neex ma nga ca bëggul dara lu ma metti bërki démboo njaay bañ may tuddal loxo ma nga ca lépp ma nga ca daw naa daw bay bëgg a dee tabax bii yëpp moo ko tabax dërëmu kenn demu ci kon xam nga kooku am na njëriñ ñu toog tàggale ko da ngay am lu la metti man am naa lu ma metti ba ci kanamu yàlla mënuma sax wax ndax man metti na ma torop sama xarit la woon am yërmande ci ndeyam am yërmande ci ay rakkam ci ñëpp maamam ak ñëppam ay tantaam a ngi fii ñoom ñëpp ñëpp la am yërmande bu ñëwee fii kër gi day neex man jeudi bi bi mu fi ñëwee rek avant muy dem kër gi fii la yendu lu ne lay jënd ginaar ak lépp lay jënd togg ba mu neex yendu moom loolu la xam kafak ree nitu jàmm la nitu salaam la am nañu lu ñu metti nag torop torop torop torop waaye est-ce que euh, mën nga ñëw nettali benn anecdote boo xam ne dund ngeen ko loo xam ne boo ko xalaatee rek sa xel sa xol dafay tooy. kooku man chaque chaque kii ma dund ak moom lu neex bu ma ko woowul bu ma woowul téléphone ñu déggante ñi ngi gisante saa yu ñëwee man lu ma gën a neex ci moom saa yu jugee Dakar ñëw téléphone la may woo nekkuma fi maa ngi say fële mais daf may woo téléphone ne ma bijou ma ne ko naa mu ne ma ñëwal ñëw naa ma ñëw comme ni ma la ko waxee su ñëwee danaan ma yendu sil su ma ñëwee yenn si lu ne lay jënd amul lu mu dul jënd xaal ak lu ne lay jënd nitu jàmm nitu salaam bëggul ku ko mere bëggul histoire bëggul problème bëggul dara nitu jàmm la dafa sedd xale bu ndaw la nag dem dafa metti man maa topp ci moom 90 la kon xam nga ne kooku xale la xale bu ndaw la demagul fenn ba fi ay njaboot bu ndaw teel a njaboot nag ñu njaboot gaa ngi nii kan moo leen yor sant yàlla rek mais dañuy sant yàlla bu wér mais. yàlla weddi. waaw ah, waaye daal maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana suuf oyof si kawam tool waaw yàlla yàlla na suuf sedd si kawam si barke Seydina Mohamed. mbir mi naka nga ko naka nga ko yëgee nu la dikkee. waaw nu ma dikkee daal moom metti nañ torop ndax ñun dañoo demoon Fuuta amoon fa tuuru famille waaw léegi ñun demee foofu ba toog ba àgg mu daal di ñuy woo téléphone ñu daal di jël. ma toog di ko ñaana ci téléphone bi di ko ñaanal di ko ñaana mu ne ma amin léegi ma daan ne ko Ndeye Fatou foo nekk fii mu waaye waxuñu woon sax fu mu nekk nekkate moom demoon na si dëkk ba dama wuti bagage waaw bu ñibbisi daal ci la eh, soog bi am ci yoon bi waaw ñaari bi si mbëkkante waaw ñun daal bu ñibbisee si jàmm ak salaam ci la ñu yëg koor bi waaw ci la ñu ko tàgg daal mu metti ñu torop nag muy doom ju baax ci ñun dëgg yàlla waaw mu naqari ma lool waaye nag bu yàlla soxlaa moom ku kii dangay ñàq ñàkk waaw doom bu baax la dëgg yàlla ndeyam tamit muy ku baax muy sunu mag téye ci kër gi lépp moom la waaw dëgg yàlla lépp moo koy def ci kër gi waaw laaju ñu dara waaw muy courant mooy fay waaw njël mooy defar ba mu baax laaju leen uuf ay raqam uuf ay magam uuf sama yaay macha allah xam na ni sama yaay mag la waaye day toppatoo sama yaay bu baax waaw di ko yóbbu hôpital rendez-vous du tàdde waaw ay garabam lépp moo ko koy defaral waaw di ko tuufaay du ko defal lépp dëgg yàlla mun ñu koo fay waaw dañuy ñaan ndey faatu mii yal na ko eh, eh, kii yal na xaree na yal na suuf oyof su ko mel ni xol lu mel ni moom moo nekkoon xolu famille bi xolu famille bi tey moo dem moo nekkoon xolu famille bi dëgg yàlla moo nekkoon xolu famille bi de ndax day faatu tey jii war na yàlla gisatuñu ko de waaye metti nañu torop sax ba ci kanam yàlla waaw metti nañu torop torop torop ndax xam naa ne moom bu nit ñi demee dinañu weet loolu sax nañu weet torop dëgg yàlla kër gi moom moom bu ñëwaan day xumb bay bëgg a dee événement tabaski war na yàlla dañuy jële suñu kër man sama kër jëkkër laa nekk di sëy waaye day ñëw wooñu yóbbu ñu marché man sama mag yi fii sama taawu yaay a ngi fi sama beneen mag a ngi fi sama ñaari sœur a ngi fi waaye macha allah ñun ñëpp la bëgg te xale la waaw di daw rekk di daw rekk ndax njaboot bëgg nag ay tàntaam bañaluñu dara bañaluñu dara ndey faatu affaire bi naqari nañu torop metti nañu waaye nag mbirum yàlla la waaw duñu xëccoo sunu borom. waaw yàlla moom bu soxlaa dañuy ñàkk waaw bu soxlaa dañuy muñ metti na torop nag dëgg yàlla am na fu mu ñu féete lool lool lool lool am na sunu yërmaane hôtesse yëpp moo koy dagg dañuy jëndal yëri dëgg yàlla événement sunu doom yi sax day def ci ñoom ku am yërmaane la ci moom ku am yërmaane billaah moo koy defar ba tabaski jotee sax da koy yeewal ngandu maamu xar billaah xar mu ngand la ko yeewal ba pare jëndaatal mu boppam beneen xar te kër gi ñëpp wax dëgg yàlla ci xaram lañu ñu jullee ci xaram lañ jullee aba kenn mënu koo fay aba doomam baax na naana baax na am na xolu yërmaande na ndeyam waaw alaaji noonu alaaji mu ndaw mi mi caatam lu mu am da koy séddale des toog jël nañu seeni jukkoy ndey aba kenn mënu koo fay deewam gi naqari nañu torop waaye nag dañ koy muñloo yàlla waaye métti na waaw métti na torop man aba dama bëgg dama takk depuis ma nekkee woon Dakar bu ma ñëwee fii day langaamu ci man di jooy na ma ajaamu su dem bàyyi ma fi. ñun ñëpp a woote mais kenn jotu ko kenn jotu ko téléphone bi fay ku ci nekk di woote ñun nag. mujj gi démb ñuy jaaxle ma ni leen toogaay jeex na ndax bu ñuy wote depuis boobu ba léegi jëlu def dara téléphone am fay ñu jóg jóg jot na ci la ñu jógee jël joxe paas sama jëkkër dem te mu demee la gis lépp lii lañ ci am waaw lii daal lañ ci am. amul lenn loo xamante ni manqué na ci moom. non dara manqué ci moom kanam bopp bi rek la bopp bi moo toj loolu bi ci bopp bi bi daal ci bopp bi la. Mhm. yaay booy bi nga ko yëgee bi nga ko yëgee information bi lan nga yëg ci yow mi ci yaay raqu yaay. metti na trop ñun ñëpp dañoo tëdd di jooy. mu metti di xalangu fii metti woon na démb torop biñ ko yëgee metti woon na torop bi nga information bi dalee lan nga lan nga njëkk xalaat ni ma njëkk a xalaat ah lu metti rek metti rek lu may xalaat moom reem kaf ree bu ñëwee fi sala sawee ma ne ko yu mun a ma bàyyi mun a ma sala kaay ñu toog fii waxtaan kaf ree rek yenn saa yi may jaay xam nga damay jaay fi fataay su may fataay mu ñëw toog sama wet di waxtaan ak man wax dëgg yàlla amul benn problème xool bu rafet la am. billaahi. yii abaa moom man deyam bi da koo bett man leer na ma reer bu xalaatoo ne lii lay dem man yóbbu naa ko ba Gàmbi xam nga man Gàmbi laa di yóbbu naa ko ba Gàmbi. billaahi yóbbu naa ko ba Gàmbi suñu waa kër ko xam amul benn problème sama njëkk lu baax la billaahi baax si man trop. yaayam tam même chose famille seen famille kenn amu ci problème ñoom ñëpp a baax wax dëgg yàlla. waaye tey nga am doomu ndey mu génn àdduna ci circonstances yi nga xamante ni moom la génnee àdduna xëy na am na benn message wala benn alerte boo xam ne war nga ko mën a def ci autorité yi yor wàllum transport bi tamit. Ah, ne sëñ bi moom sama xol bi daa jeex dafa sama xarit a dem billaahi ñëpp suñu waa kër ñëpp ku ñëw ñu ne ma sala yow la ñuy xalaat ci abaa ñëpp koo wax foo ko fekk amul benn problème xool bu rafet la am dëgg yàlla waaw moom yan na ko yàlla xaare àjjana rek laa koy ñaana ku baax la ku baax la xale bu baax la xale bu yëg nit la billaahi amu benn problème foo ko fekk rek ay buña bëgg ay tàntaam xoolu kii sama yàlla xoolu kii ñëpp la bëgg ñëpp la boole boole ñëpp sama sama doom ji du ma fay jagarta moom moo ma ne moo ma fayal sama doom ji jagarta abaa ba ni mu defee keroog nag ba ma demee sama kër benn sœur ma toog fa gis événement bi sama benn sœur bi taala ma ma toog fay seetaan ma may jooy yendoo jooy ba ngoon jot ma ne ah bi metti na de ma ñëw di ko wax suñu waa ko ñu ni ñun suba ba tey moom la ñuy seetaan ndekete ñun xamul ni woon moom ci la bokk dégg nga ñu daal di jóge fa daal di ñëw ñëw ma ne ah Ndeye Fatou lii de moom kii nu mu tuddati nentaan ma ne ko accident metti na mun ma metti na de waaye xëy na ku reppul doo ci bokk Mm. ah yàlla baax na ma tëdd guddi sama fit bi naan nii di tëb tëb ma ne ah man de sama fit bii ni muy tëb tëbee mbaa suñu bokk bokk ci. ñu ne dee na waaye Ismaïla ki mu ngeen mujjoon waxal noonu xale bu góor bi moom benn doomam bu nekk fii a jox ko paas ni ko demal nga xool Kawlax ba xam fan la nekk fan ba xam Ndeye Fatou bokk ci sëg kooku bi mu demee ne xaw ma ban hôpital la dem gis fa Ndeye Fatou daal di ñëw wax ko jabar ji mooy kii taxaw nii rek ñu ne abaa dee na nii lañ ci tool moom mu denc ko fa di lijjanti di lijjanti ba indi ko waaw. waaye bu ñu leen abaa dee na muy ndey faatu lan nga yëg yaay booy. jaaxle rek ndax tabax bii mu mu nekk si suñu ginnaaw moo ko def àggalewu ko yéeneem rek la doon def bëgg ñëpp dëkk ñun amuñu doole suñu yaay lañu am mu màgget sam papa teel a génn àddina kenn. yaakaar la ñu am ci ñoom rek xam nga jamono bi naqar naqar goo xam ne xel boo wootee appel ñi lay dimbali wala ñi lay jàppale lu bari dafay néew lool. dafay néew lool waaye tàllal lañ suñu loxo au président de la république message bi dañ ko koy lancé suñu mën a dimbali jàppale ñu te yàlla rek tax mu dimbali ñu àggale bâtiment bi projet muy projet bi nga xam moom la entamé woon te àggalu waaw ndax dëkkuwaay dafa metti te vraiment. xat nañu yaakaar am na woon ti moom yaakaar nag bu ko àggale yaam élevé en location te jigéen la sësul ci kenn métti na ay tantaam mi nga xam ñooy rakk yaayam ñu ngi nii jàppuñ ci dara moo daan joxe dépense moo daan tout ce qui s'ensuit au niveau de la famille rek moo ko doon def waaw ñu tàll suñu loxo daal au président de la république président Macky Sall daal mu dimbali ñu joxe apport joxe waat apport parce que li mu joxe déjà c'est quelque chose ndax li mu génne déjà rek débloqué ko pour euh, accident bi waa metti na bari na waaye yan bi oyof na yàlla na ko yàlla oyofal yàlla na ko yàlla oyofal yan bi daal ñu ngi ñaan aussi autorités yi au niveau de Thiès amuñu kenn ku yaakaar nag waaw da nga toog daal ñu ngi toog suñu ruq daal di dundee yaakaar ci waaw ñu ngi doon ñaan daal au niveau de la yi ndax comme déjà bourse sociale yi jàll na ba noppi ñun ñi kenn amu ci ñu ñi ñu au niveau de la famille ñi kenn amu ci particulièrement man ak maama bi nekk ci kër nga xam ne bët yi neexatul mi ngi toog benn place yaayam aussi moom tam amu ci bu ñu amoon daal au niveau de la mairie pour aide sociale yi ñu mëñu cee mu mën cee dimbali pour ñu mën a am daal lu ñu apporter ci kër gi waaw daal moom daal lu ñuy ñaan daal tàllal nañ suñu loxo daal ñu ngi tàllal suñu loxo waaw man bu ma doon lancer message autorité yi dama leen naan tali yi ñu yokkaat ko parce que benn ci tali yu xat mën na indi yenn problème yi xam nga oto jóge fee oto jóge fii ñu dalante tali bu xat moo ko waral bu tali bi yaatu woon kon espace dina am xëy na bu soog dee am sax du doon dalante gu metti gi dana yamambaay mais tali bu xat tali bi dañ ko war a yokk defar ko diggante bi ngay wax Kaffrine nag yi jëm côté boobu yëpp nañu yokkaat tali bi te ñu vigilant ci ci ci ci route yi chauffeur yi ñu xool ni ñuy dawee parce que mënoo yàpp ay nit nga mel ni ku yàpp ay xar nañu waxante dëgg bis bi ku ko xool li mu yàpp avant mu yàpp ay nit rek dafa diis wëlbatiku nga yàpp ci ay nit loolu day gën a diis xam nga loolu dafa metti te yow say pono baaxul déjà nga ne yow da ngay yóbbu ay nit nga yóbbu leen sànq leen nii te yow leen la ne sa ñeenti pono yëpp dara baaxu ci nga ñëw ba ci digg ba sa benn pono bi toj loroo doomu jàmbur lor nga leen ndax ñi ca nekk ñëpp sook bi nag metti na torop plus de 60 personnes yu dee metti na ñun am nañ ci lu ñu metti mais ñeneen ñi tamit am nañu lu leen metti ku nekk nag sa bopp nga xam ku ju ku wéet sa bopp nga xam mais dañuy sant yàlla di leen ñaanal ñoom ñëpp te wax na nguur gi ñu jóg ci li metti na nañu xoolaat ni ñuy doxalee. kan nga ko mujjee dégg ak yan kàddu ngeen mujjee échangeante. man xam kañ laa ko mujjee dégg euh, le le vendredi vendredi waxtaan nañu ma ak moom ba mu ne ma carrément day dem day dem fukki yi yaa ngi dégg mu tàggu ma ma ne ko waa baax na soo yeggee nga woo ma def ma signe mu ne ma su ma yeggee naa la woo ñu waxtaan boobu laa ko gëj a dégg dimanche bi laa xëy di ko woo jotuma ko ba lundi bi ma koy woo di jot bu avocat sama xel ñaaw na torop comme niñ koy waxee rek bu continuer nii xëy na tamit dañuy mujjee fay suñu ay caméra rek ndax ku wax ci moom sa xol tooy nga tuur ay xéewal mu waneen rek ni nga xamante ni moom la doon nekkee moom soxna si génn àdduna muy Ndeye Fatou ñu naan ko Abba mu mel ni ku baax la woon ku yaru la woon ku yëg nit la woon kàddu gi benn la waaye tamit ku am jàmbaare la woon ku jàmbaare la woon ku jàmbaare la woon ku wax rek loolu ngay wax bëgg yaayam bëgg ay doomam waaye tamit bëgg ñëpp yor pusoom rek di ñaw nekkoon soutien de famille tey lan ngay tàggatoowee soxna si. man de maa ngi ko ñaanal yal na ko yàlla xaaree aljana. billaahi abaa man moom wax dëgg yàlla dina ma wéetal man. man fii la doon toog sala sawee mën na ko dimbale man moom dina ma wéetal maa ngi ko ñaanal fi bàyyi. billaahi lu ma ci mën naa ci def soo ko de alaaji man alaaji rek laa yërëm waaw lu ma ci mën naa def moom billaahi alba moom maa ngi ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare aljana yi gën a kawe waaw jàmbaar la ba moom suñ ko boobee dañuy yónnee xaalis mu ne maa ngi nii di leen ko dina fi jënd ceeb dina jënd dawlin dina def lépp sama garabu yaay yi mi ngi ci lu ne lay defal sama yaay bu ne sepp rek mi ngi jox sama yaay ñu ngi sama yaay yaayam ji noonu la ko bëggee bëgg ay njabootam ki ci gën a ndaw nii alaaj day toog léeg-léeg yaay alo yaay foo nekk mënu ko maa ngi ni ko dugalal ma 2000 dugalal ma 2000 dama soxla 2000 moo ko daan fayal jàngam di ko yëpp ñun ñëw di doole lañ amuñu dara moom nag moo doon suñu yaakaar waaw te daan dem di jënd ay bagage ñëw di ko jaay waaw commerçante la woon waaw te lu mu jaay wala lu mu liggéey fii la ko indi ci biir kër gi day faatu mooy jënd ceeb mooy jënd dëwlin mooy fay ndox mooy fay courant dafa daw ba dee dafa daw ba dee te ñun ñëpp a ngi ci kër gi liggéeyuñu defuñu dara mais moom rekk di xale muy daw rekk nag di daw ngir njaboot maamam ji ci biir kër gi yaayam ji ci biir kër gi ak ñun ñi di ko ñaanal yàlla nag fa mu jëm yàlla ko gënal fi mu jóge ngeen mujjee wax yow ak moom ak yan kàddu rek mooy yi ngeen mujjee échange te ñu mujjee mooy dañoo amoon tuur dañoo amoon tuur kokki kokki lañu amoon tuur tuuru famille ñu demoon ca nag bi ñu demee ci tuur bi ci lañu woo téléphone te muy samedi bi te jour boobu la dem hmm. jour boobu la ñu mujjee dégganteeg moom téléphone te bi mu ñuy woo téléphone ñu ngi koy ñaanal ñu ko wax ne ko loo bëgg yal na la ko yàlla defal ñi nga ñu sagalee suturaalee ñu ko billaay loo yootu di nga ko jot ñi koy ñaanal nii ba pare nag di ko tooñaale maa ngi koy tooñ sax naan ko yow de ñii nga defal man defalagoo ma dara affaire yooyu maa ngi koy tooñ noonu mu naan ma ah ma ni ko mu ni ma ah yaa wax lool ma ni ko maa wax loolu defalagoo ma dara ma koy tooñ noonu muy reetaan yal na yàlla loolu daal la ñu mujjee wax ñu nag moom waaw mooy samedi boobu. yooyu nga sama lañ ci parce que man ci moom laa jokkoo le président Habib Niang suma xarit la suma doom la maire Kébé rek la may wooyee man ci moom laa jokkoo suma carte moom laa ko jox parce que dama waloon ak moom yàgg na depuis bu mu instauré listam ba bi mu instauré place am bii ba tey ñu nekk ci ci moom laay yëngu lu mu woote ma dem ci parce que dama waloon ak moom ma nekk ci moom président Habib Niang kooku tiituma ko su ko yëgee incha allahu rabbi bés buy ñëw je serai présente parce que dana am Kébé je suis la sœur à la fille qui je suis sa tante sa sœur Habib Niang maa ngi lay woo maa ngi def un appel solennel nga ñëw seet si maire Kébé mi ngi dëkk ci wetu maire as maire Gissé maire Gissé moom boole ma kooku yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm kooku génn na àddina waaye moo tax ma xam Habib Niang Habib Niang kooku kenn du ko naataab au niveau de Thiès c'est l'homme social fu ne fekk nañ ko fu ne ànd nañ moom man Oumou Kébé maa ngi lay woo man maire Kébé maa ngi woo maa ngi lay woo Habib Niang nga ñëw. nga dégg sama wax bi dégg sama appel bi soo ko dégg je sais très bien que ne suñu aajo dina faju incha allahu rabbi waaw président bi ma ko woowee jot boîte vocale dama ne carrément comme iPhone la yor iPhone day gaaw vide te tàggu woon na ma ne ma day dem Fuuta kon comme sori na. yaa ngi dégg ma ne kon téléphone am dafa bidd man loolu laa xalaat sama yaay sax bi ma woowee di wax ne abaa ñu koy woo jot baax ma ne ko xëy na téléphone dafa vide ma ne ko moo tax ñu koy woo jotuñu ñu ko nañu négé ne tuuti démb man maa leen topp di leen enchaîné waat di leen woo di leen woo heure bu ma leen woowee ñu ne ma boîte vocale man mii su ma wootee boîte vocale laa jot bi ma yëgee nag choc bi nag ci la sama xel ñaaw ci la sama xel ñaaw wax dëgg yàlla mais xalaatuma woon ne moom dina bokk ci lii xalaatuma ko woon te téléphone moom musul fay moom téléphone du fay heure boo ko woowee danga koy jot boo ko woowee xaaju guddi danga koy jot da lay décroché kon xam nga loolu sa day ñaaw noonu la fa demee. waaye métti na metti na métti na massa yaay booy nii nag bu ko continuer émission bi yaakaar naa dañ koy dañ koy daal di dagg ndax wax dëgg yàlla metti na ci ñun ñi nga xam ne sax ñun ñoo toog di def émission bi ndax ay nit kase lañ mënuñoo am lu dul xol waaye yaay booy métti na da bës sa xol rek ndax suñu boroom xëy na moom moo ko moom ko namee nii te bi mu dalee jël ba léegi jëlul lum moomul. képp ku suñ boroom jël rek moom moo ko moom dafa wuyu juwaat ci këru dëggam yaay booy lan mes ban message ngay lancé parce que gis nañ ni tabax bi ci ginnaaw moom moo ko tàmbali woon yeggalewu ko tax soxla ngeen wax dëgg yàlla ku ko ku leen ko yeggale soobee yàlla bëgg nañ ko koy yeggale ci kàttanu yàlla ñu koy ñaan Macky Sall mu dimbali ñu jàpp ci rek ñu yeggale ko ci kàttanu yàlla mbaa xam. nee nañ sax Lam Tooro yëkkati na 200 millions. teg ko ci famille victime boobu ba léegi yéen déggoo leen ci. dégguñu ci dara gisaguñu dara tamit gisaguñu dara joxaguñu dara kii jëli koor bi dañ ñu woon buy ñëw day àndaaleen moom pour ñu jox ko waaye ñun gisuñu dara ñuy ñaan ci yàlla nag Macky Sall na ci dugal loxoom ñun ay ba kii lañu néew di doole amuñu dara waaw. Aba moom ndax oto yi tamit war nañu wax ci ñoom war nañu wax ci ñoom ñu def bu ñu dawee ba guddi ñu gaare. parce que fi mu ne dañuy tuur bakkanu doomu aadama yi rek ñun keroog bi ñuy jóge Pouta oto bi xol na xol boo xam ne kenn xamul nu mu doon waaw ñu bëgg nag na wax ci lii defal leen heure bu heure jotee mu wàcce leen ñu wàcc ba suba boo xëyee nga mën a duggaat ci kii bi dem loolu mooy li gën waaw Macky Sall na ci taxaw def ci lu mu mën ndax tey jii nii tuuru ci doomu aadama ëpp na ëpp na. naana naana ak i alaaji ñoom ñaar rek laa xalaat ndax ñoom dañ koo taq doom bu jigéen boobu dafa taq yaay ji te yaay ji lu ne la koy defal depuis boo dëj bi amee ba léegi noppiwul ba léegi day jooy day jooy abaa kenn mënu koo fay abaa xol bi dafa baax dafa rafet macha allah sans défaut abaa ku baax la ku baax la amuñu fayam ndeyam tamit aussi noonu bëgg sama yaay bëgg maamam ba bugg a dee lu ne lay defal maamam bu ñu xottilee day xottil maamam waaw fii kër gi ñëpp uh, am seen hôtesse kenn du des dëgg yàlla day xottil ba xotti sama doomu tante bi nekk ci kër gi waaw kenn amul fayam yàlla am fayam yàlla na ko yàlla teeru yàlla na ko malaaka yërmaane teeru waaw loolu mu jullit képp. kañ kañ ngeen mujjee déggante ak yan kàddu ngeen mujjee échange ante yow ak moom. waaw keroog eh, fi ngeen déggante ak moom mooy ba ñu nekkee Fuuta waaw ba mu demee ba àgg après ci la jël téléphone am daal di ñuy woo ñun sax dañoo yaakaaroon ni Dakar la nekk nekk da nekkul dakaar nekk moom dem na foofu waaw. après moom bu ñu ba ñëwee ba ñu tàggee ñu soog bi si la ñuy doog a xam ni sax moom dëkk boobu la demoon. waaw waaye dafa demoon wuti bagage waaye dafa jënd bagage bay wëññeeku ci la yàlla def li mu def waaw. ñu man li ma leen di wax mooy. dama bëgg ñu bàyyi dawalu guddi gi nañu arrêté dawalu guddi te bu 6 jotee ñoom ñëpp ñu wàcc parce lii dafa metti accident yu du jeex du xaaj dañ ci war a wax Macky ci bopp moo ci war a jóg nag te nim ciy jóge mooy mu jëmbët ci fulla ak fayda ba dootul amati dawali guddi parce que ni ñuy dawee metti na di daw ay xel di doubler même keroog bi ñu demee kokki noonu la woon suñu oto bi day daw ba ñu ne ko dawal ndànk yaboo ay xar waaw nit nga yab kon nag na jóg ci loolu loolu rek laa leen di wax. yaay booy lan ngay tàggatoo muy message boo xam ne da koy lancé waa trans waa yi wala mu xam ban message daal wala lan ngay tàggatoo. waaw mooy chauffeur yi rek ñu bàyyi seen xel ci nit ñi te xam ne. tali yi xat na mais tamit il faut ñuy dawal ndànk ndax dawal ndànk ba yegg fa nga jëm moo gën ka ngay daw yenn daw yi ba rey doomu aadama dafa metti moom daal euh, sama jabaru rakku yaay bi moo ko jëli ji woon yaa ngi dégg bi mu demee hôpital Kaffrine yi la leen fekk bi mu leen fekkee ca hôpital ba la ko fekk identifié ko indi ko je ne sais ndax sur le sang la de ou bien yàlla rek a xam moom mi ko jëli woon tamit ba tey ñun nanguwuñoo sax wax ak moom parce ñun suñu xol neexul nanguwuñ ko xamuñu nag ndax ci saa si la dee ou bien ci hôpital bi la dee wax dëgg soxna si lan ngay tàggoo. waa di leen jaajëfal di am contentement ci yéen bu baax a baax euh, gis nañ seen taxawaay di wax nag di wax nag autorité yi nañu dimbali nit ñi. nañu dimbali nit ñi ndax ñun fi mu toll nii soxla nañ ko de ndax fi mu toll nii ñun ñëpp ak ña ca def choc ñëpp parce que ku def choc rek gis nga ku la ku bëgg nga ku la taxaw ñun bëgg nañu ku ñu taxaw ku ñu jàppale. yàlla def na nag ñu ngi dimbali suñu bopp gaa mais nag ndimbal daje fekk loxoy boroom xam nga lii dafa metti ba léegi ñun gisuñu benn autorité. gisuñu kenn mais sant yàlla. fii waa Thiès. gisuñu kenn waa Thiès gisuñu kenn gisuñu ku fi ñëw taxaw ñu ne ci autorité yi nga jóge déedéet amut. te jëli ji nañ ko démb lañ ko jëli ci fii la fanaan bi ñu xëyee 11h lañ ko denc mais dégguñu kenn gisuñu kenn kenn ku yëkkati ku ñëw fii autorité bu dëkk Thiès sax xam nga ne danga ko yëg parce que choc bi nu mu mettee ñëpp a ko yëg mais gisuñu kenn. ah rek. chauffeur rek ñuy daw nànk rek daw nànk rek waaw ndax lii dafa metti yëpp ay doomu ay ay bakkan hmm, nekk fii di di daw ci guddi gi ah, ay deux heures du matin ngay nelaw ah bay jël ay doomu aadama di leen di leen teg ci tali bi xam nga nu loolu dafa metti lu metti la lu metti la ñuy ñaan yàlla rek ah Macky Sall mii nga xamante ni moom mooy borom réew bi ah mu jëm cee jóg rek wax ci waaw jëm cee lijjanti rek waa wax ci loolu rek laa ci xam. yaa booy nag lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy a ah, maa ngi leen sant di leen gërëm waaw mënu leen a fay yéen nii maa ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaw ngeen toog ba seen garaat ëpp fii ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ngi noonu mbokki internet yi tey dañoo ñëw fii ci jaxaaw gis benn famille boo xamante ni dafa yeewoo tiis. waaye tamit yendoo tiis nar a fanaanee tiis muy famille bi nga xamante ni dañoo ñàkk seen doom ci accident bi amoon Kaffrine mu tudd ci Ndeye faatu Diouf toll ci 34 ans 35 ans jàpp sax 36 ans lañ mën a jàpp ci kàddante bi nga xamante ni gis nañ ko ci moom waaye dafa mel ni euh, famille bi dañoo xaw a néew doole ñuy ñaan euh, ñi nga xamante ni moom mooy autorité yi buñ ci mënee jàpp ku ci mel ni man mook personnellement damay wolu président Habib Niang na xam naa ni l'homme social buñ ko ci woowee bu ko yëgee incha allah dina def différence li tax ñu tuddee ko le Messi du hasard xam naa ne nag dina ci def def dina ci def participation bu mag a mag mag gis nañ état bi ñi nga xamante ni def na ko mu génne deux mille deux cent pour famille victime yi waaye man Mamadou Lamine sama avis personnel la dama naan lan mooy ndeyu ñu génne deux cent millions deux cent millions di ko def ci accident boo xamante ni moo am ñàkk nañ seen bakkan ba pare waaye ñi def ñi génne deux cent millions yooyu noonu dañoo yëgul woon transport yi nga xamante ni moom lay doxee déedéet yëgoon nañ ko waaw wala ñi génne 200 millions yooyu noonu muy nguur gi dañoo yëgul woon tali yi nga xamante ni bon na transporteurs yi ñu ngi ko ci coono nga xam ñu ngi ko ci daj. aha yëgoon nañ ko kay parce que tali yooyu noonu la la nguur gi abon bi muy dem di dagaan baatu askan wi tali yooyu lañ jël xam nañ ni tali yooyu noonu ñaari bus mu xajantewuñ wuñ ci buñ ciy dem buñ ciy dem. kenn ki mën naa ne day may moromam mu jàll ba sax moom dafay mel ni luy wàcc tali bi tali yooyu noonu nga xamante ni bon na état bi mu jugoon ci yaakaar naa moo gënoon. mu toog yëkkati 200 millions jox ko famille ngir ëllëg keneen defaat ko wala nar a amaat ñu génnewaat 200 millions luy loolu ñun waa askan wi ñun faruñ fenn politique guñ faruñ ci gouvernement faruñ ci opposition waaye tamit dañoo nekk ñoo xamante ni ci askan wi la ñu far ba bu ñuy wax ci askan bi suñu xol dafay tooy bu ñuy wax ci askan bi dañuy mel ne ko ànd ak naqar moo tax nii nañ nii rek nañ mën a waxee ndax ay ndaw askan wi lañ askan wi moo ñuy yebal a wi moo ñuy yónni mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal di jaajëfal di leen jox di daje ëllëg seen benn émission jërë ngeen